alaikum wa Sénégal asalaamaaleykum wa wa adina, xew-xew suis de lan projection film bi ngeen gis VIP sañse fu muy Olympia le 2 novembre inshallah. bëgg na nak ñëpp waaj ko ñëpp takku ñëw fekk canal Olympia le 2. Amna lu gëna jour ba muy daw ci canal Olympia mu ngi daw sen TV xaar leen ko TV samedi ak dimanche 21h ba jënd leen seen glace technique di ree di naan ba xalangu ndax xam naa ne VIP Santé bés bu ñëwee di ngeen xam ne ree rek ñoo leen koy jox piir dindi stress bi Alzheimer bi daa bëri si dëkk bi ñu dindi ko ba mu set le deux incha allah jours yi nag moins cinq xale yi jigéen ngi takkulee de ñu ngi toog leen xaar dëgg du neex